والإنسان إذا بلغ مبلغ الرجال أول ما يتعلق به إذا كان له همة عالية أن يكسب العلم ثم يكسب المال ثم يكسب المرأة للجنسية فإذا بدأ بالعلم نال الغنى ونال المرأة وإذا بدأ بالمال نال المرأة وبقي جاهلا والجاهل ميت وإن كان حيا وإذا بدأ بالمرأة فقد العلم وفقد الغنى وربما يفقدها أيضا فعلى هذا أيها الطلبة أرباب الهمم أجو بودي أجو بايلة waay dama bëggoon tënk tuuti rek ci li nga xam ne moom la wax waaye li ëpp solo mooy mu ngi ko wax keroog bi nga xamee ni nii ci la doon euh, inauguré école bi discours bii la fa tenir wax ko ci kanam élèves yi doon wax ak élèves yi dama ca bugg def commentaire d'abord euh, bàyyi dafa wax jiital xam-xam may leeralal nit ñi nag ne leen Baye moom am na feneen fu mu leeral ne su waxee xam-xam ne nañ ko sàkku waxul rek ne xam-xamu diine rek mooy xam-xam boobu moo jiitu moo gën parce que mooy defar sa diggante sa borom waaye nag xeetu xam-xam yi nga xam ne dana jëriñ doomi aadama yépp ba ci xam-xamu métier yi loolu loolu lay wax loolu la tuddee xam-xam ma yokk ci nag ne xam-xam tamit du rek mooy forcément dem ca école ba toog ci banc yi école yi français yi wala toog ca daara ja wala toog ci banc école yi arab yi euh, mais xam-xam bokku na ci jàngee ci sa yaay xam-xam bokk na ci jàngee ci sa waa sa sa baay xam-xam jàng bokk na ci jàngee ci sa mag ku mag gën laa xam fekkee lu fekkee wut mais xam-xam bokk na ci am sëriñ jege ko di ko diglu mu di la digal li yàlla tere di la ko xamal nga di ko topp wala muy jëf mu wóor na li muy jëf mooy li ko yàlla digal nga di ko nga di ko jëfandoor ak moom xam-xam mooy euh, sax jàngee ci sa ñàkk xam gi ñàkk xam gi sax nit dina ci jàngee parce que nit bu demee ba nekk mag gis ne mënoon naa ittewoo xam-xam mu rëcc ko ñàkk xam googu jural ko ña euh, rëcc googu jural ko mu jël effort bu mag ak alal ju bari def ko ci doomam pour mu jàng wala ba daam ba pour euh, wala fam yemoon ci xam-xam mu puus doomam pour doomam euh, romb ko loolu yi tamit ci jàng la jàng daal li ci xew mooy mooy mooy mooy mooy lépp luy defar doomi aadama rek parce que am métier sax ci ci defar doomi adama la bokk parce que dana tax nga ñàkk jot dana tax nga am lu dagan loo mën a muñee ba doo jël alali jàmbur